mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen émission démbak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee dañuy waxtaanee kilifa gu mag ci Sénégal euh, mu jiite mbooloo mu bari ay euh, kilifa euh, également nekk ñu ràññeeku ci réew mi ndax seen taxawaay El Hadji Mamadou moxtar Ba ko ci Diallo ñuy dalal nag ak mbégte mu rëy doomam di Abdoul Mazid Ba ak itam porte-parole kilifa gi. bi euh, di Thierno Boubacar Diallo nekk itam président wu euh, ziara bi ñu tàmbali ci Abdoul euh, Majid Ba di la nuy di la dalal jàmm ci Demb ak Tay bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu baada awuzu billahi samii illah min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, sëriñ Abdoul Majid Ba euh, ñu euh, nuyu itam dalal Thierno Boubacar Diallo di président wu ziara bi di am dimanche bi kon ak itam nekk porte parole kilifa gi ñuy waxtaanee tey ñu ngi lay dalal sëñ bi Diallo. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alamin alhamdulilahi rabbil alamin Euh, Soxna Ngom euh, jóge réew FM bi euh, ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la dalal jàmm. jërëjëf alors ñuy kon tàmbali waxtaan wi ci kilifa gi El Hadji Mamadou Mokhtar Ba ci Diallo moom mooy kan gis nañu ne communauté Ba Diallo ñoom ñëpp mooy seen kilifa mais ñu bari ci Sénégal xëy na bëgg nañoo gën a xam kan mooy kilifa gi loolu ñu mën a wax si moom. alhamdulilah rabil aalamiin El Hadji Mokhtar Ba. Euh, dafa juddoo Guinée dëkk bu ñuy wax Mali Yembera moo nekk frontière ak euh, noor bi moo nekk frontière ak Kédougou euh, mu ñëw Sénégal alhamdulilahi rabbil alamin Sénégal teew teraanga la bu mu egsee bu yàgg nekk ak El Hadj Seydou Nourou Tall El Hadj wane ko kilifa diine yëpp ak kilifa euh, état bi alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk taalibiyam nekk ci wetam El Hadj Seydou di ko yónni di ko defal lépp mu paree jànge euh, Guinée ñëw fi El Hadj Seydou Nour nekk àndaloon mu koy mu nekk taaliba mu nekk ba El Hadj Seydou Nour ne kii yor doom mat na ma doom doy na ma doom alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk fi nekk fi ba tey di liggéeyal communauté guinéenne bi yëpp am teraanga Sénégal liggéey ak tous les grands cadres du Sénégal depuis les Valdiodio jusqu'à aujourd'hui alhamdulilah am teraanga kilifa diine yëpp aussi euh, alhamdulilah rabbil laa dañ ko jox ndukkal ñoom ñëpp dañ dañ koy ñëw si këram di ko nuyu di ko jaal di ko euh, loolu am na euh, communauté guinéenne bi ñu fi nekk muy Guinée dafa am quatre régions naturelles muy Basse Guinée Guinée forestière la Haute Guinée et la Moyenne Guinée ñoom ñu seet si liggéeyu paa bi lu mu leen defal ne du amul lu ñu mën fay paa bi su dul defal ziyaare xalifa bi buñ ko déggee communauté la buy dégg loolu ne ni ñoom du duñu nekk si ginnaaw puisque élage Hadj Mokhtar seen papa la lu leen booleeg lébu yi. lu ñu booleeg lébu dafa bëri lébu xam a lébu yi si suñu dégg penc ñett fukk ñett fekk ak ñett la léegi am na fukk ak ñeent fukk ak ñeenteel mooy mooy mooy pël yi. Hmm, waa Guinée. waa Guinée communauté guinéenne. mooy mooy lool lool la ñu. yéen pencum lébu ngeen léegi. pencum lébu la ñu léegi. suñu mbokk lébu yu jóg ne lii léegi du seen du seen def suñu def la buñ ko déggee. waa waa El Hadj um, Sër El Hadj uh, Umar Foutiou Tall ñoom ñu ne déedéet kii suñu papa te ñoom uh, waa Tiwaawoon déedéet kii suñu papa suñ ko leeree seen pa suñu papa ak papa kii dafa noonu kii mooy suñu tab mu nit ne topp leen ñu kii suñu papa léegi nag communauté sénégalaise bi yëpp ak communauté pël yi uh, communauté guinéenne bi muy malinké muy suusu muy forestier muy guerrier muy kii ñëpp ñeneen ñu ngi seen ginnaaw. loolu moo indi eh, ñu ñëw si samp ñu ñëw si xalifa bi ne xalifa bi dana bëgg nga jëmal nga nga nangul ñu ñu ziyaare la bu ko defee mu woo porte parole am ah, loolu ah, baax la loolu moo tax lii lan moo waral ziyaare bi xam nga tey sës nañu boo sës xam na ba euh, ñuy ayil ba lislaam de telle sorte que boo deful boo deful xel euh, dañu oyofal l'islam l'islam dafa tedd lu teddal l'islam euh, c'est le livre saint muy Coran bi lépp lu ñuy ut si àdduna mu ngi si téere yàlla bi lépp lu ñuy ut si àdduna bi mu ngi si téere yàlla bi moom nag si loolu lay dox si loolu lay jëfandoo dundam yëpp si loolu lañuy yare si loolu lay jëfandoo ak bani aadama bu nekk loolu tax ni jukkal boobu yàlla tegal ko ko Sénégal gërëm ko ne dinañ la defal jo kii bés bi bés bi nag suñu bés ba ñun ñëpp la réew yi suñu réew actuellement dafa am agression terrible suñu suñu jàmm mu ngi reculer mën mën mën mën ak nekk benn mu ngi mu ngi reculer ñu ne léegi nag plus pour ñëpp nekk benn nga saafara ñu pour suñu réew ñu am paix nga saafara ñu jàngoroo nekk si yeneen réew bu ñu egg si ñun ñu ñaan la nga defal ñu defal la ziyaara nga ñaanal ñu suñu Sénégal nekk benn nekk en paix en solidarité entente. loolu moo waral thème bi. loolu moo waral thème bi. Guinée am paix am entente am solidarité Mali am paix am entente ak solidarité Afrique am paix monde bi am paix lu ñuy dégg si yeneen yooyu bu ñu egg bu ñu suñu réew loolu moo tax tax moo taxaw li te moom lu muy wax lépp lu muy dundam yëpp l'islam rek l'islam rek dimbali dimbali baadoolo dimbali miskin si loolu la nekk loolu allahumma salli ala sayyidina mooy premier mooy hmm. ah, en plus de cela euh, euh, c'est un homme au-delà de de de de de de de de sa personne il vit que de l'islam il vit que de prosternation il vit que de que le monde soit soit euh, un monde de paix que surtout le Sénégal qui l'a accueilli, qui l'a hébergé, qui l'a chéri, qui l'a grandi, que ce Sénégal-là brille, que le peuple sénégalais ait une paix pour que le Sénégal aille de l'avant. Que la Guinée là où il est né, que cette Guinée-là aussi retrouve la paix, qu'il y ait une intégration entre le Sénégal et la Guinée, que le Sénégal et la Guinée soient un seul peuple. C'est ça son objectif. Et il vit de ça. Il, il veut que tout cela se fasse. C'est ça son objectif. Et il, il, il, se nourrit, il se nourrit que de ça. allahumma salli ala sayyidina Muhammad. jërëjëf euh, Serigne Abdoul Majid Ba ñu ñëwaat ci yow euh, ci kanam tuuti euh, ñu ñëw ci porte parole kilifa bi nekk itam président wu xew-xew bi di ziara bi Thierno Boubacar Diallo ñu ngi lay dalalaat jàmm ci waxtaan bi alors yow loo ñu mun a wax ci kilifa gi ndax buñ ne communauté guinéenne ku ne xam na seen taxawaay bi ñu am ci Sénégal mais moom Thierno Mamadou Mokhtar Ba ko ci Diallo bu demee ba am li mu am ci Sénégal ni ko. léegi sëñ bi ba waxee lébu yi ñëw euh, nekk ci ronam murit ñëw tijaan yi ñëw kenn desul gannaaw euh, moom euh, kan la wax dëgg yàlla jàpp naa ne war na am lu baree bare bare lu mu taxawee ci Sénégal ba tax mu am loolu mu am looñu mën a ci moom jërëjëf soxna Ngom maa ngi kontaan ci laaj bi trop te sawar di tan waaye nag xam nga doomu bu waxalee papa ba pare Euh, day jafe am loo ci génne lu raw loolu waaye maa ngi seede te yàlla tax ma seede ci li ma xam Alaaji Mouhamed Moutar Ba ko ci jàllo su ma ko soo ma doon laaj fii boo suba du mu mën a jeexal waaye daal xamal naa ne góor gi euh, fu mu toll fii am na cent cinquante waaye boo doo waxtaan moom dangay foogu ne trente cinq la am ci xel bi lépp loo doon defante am moom li mun a defante am jullite am dafa lay féete ndaw parce que daf la ciy mun dafa lay raw sa kanam moom góor bu yaat la bu am xam-xam la bu dal la bu doylu la ku xam nit la ku baax la ku mun a maye la daanaka dëkk bi mu dëkk jóge awam muy ñëw fii ci Guinée eh, dañ koy wax ne baax yaay xam nga ñun foofu nit bu baaxee dañuy ne maanaa sa yaay la baax yaay karan sëriñ de Dakar mu am fii la àlla ji Muxtaar moom tam noonu lañ koy wax baax yaay hmm. ñun noonu lañ ko doon owe kon àlla ji Muxtaarum bi mu ñëwee fi yàlla def yàlla boole ko Thierno Seydou Nour Tall. kañ la ñëw Sénégal. Euh, loolu mag na ma trop. Mm-hmm. yàgg na loolu. loolu mag na ma trop. parce que année vers les euh, yaakaar naa fi la ko fekk. xaw ma na vingt la xaw ma vingt neuf la. donc bi mu ñëwee euh, yàlla boole ko Thierno Abbas Thierno Seydou Nour Tall Serigne Babacar si yu mel noonu yu mel noonu boo mu jeex ci. ci re kilifa diine fi teew yëpp mais. xam ngeen lu ko fi indi woon. Euh, xam nga li ko tam bi mu fi ñëw. dafa am lu mag yi doo wax. boobu ñun bariwuñu fi. dañu ne rek waaw dañu ne rek bu ñu gis ne ne yembere te moom nag xam nga yembere la dëkk. Euh, moom li ko li ko indi woon fii moom bi muy ñëw fii pare na jàngal Alxuraan mais terew bi mu fi ñëwee. bu nekkee na wetu Thierno Saïd Nour Tall mu gisulu xaymaan lu bari foofu ku bugg a dolliku la mu dolliku yàlla jàppali ko mu gën a yaatu gën a baax mu am ndëgër laay boo sëriñ bi jàpp ko wóolu ko lool wóolu ko lool eh, su doon dem moom Senghor dafa doon ñoom ñoom yëpp foofu lañ doon ndekkee dafa doon dugge pale comme ni mu ko neexee yàlla may ko wërsëg bi ko yàlla mayee wartike lu mu commencé ci mooy defar ay ay ay jàkk ci Guinée mu ko defar ay yoon defar labtaan boo jàkka yooyu tey ay jumaa yu bari la defar ay daara mu créé daara ñi mu jàngaloon foofu ku nekk mu créé la daara nga yor ay taalibe boo tey ji am na bu bari bari bari ñu muy dundal foofu kenn mënu leen lim donc dafa teel a mun a saraxe mu ñëwee fii nag yàlla def ñu yaatal ko mu nekkee doomu Thierno Seydou di xaritam e, yàlla def yàlla boole ko Roi Sandé ni nga toogee fii nii Roi Sandé dafa dafa déplacé wu Maroc Maroc ñëw seetee ko nii fii kooku mooy El Hadj Mouhamadou Makhtar Ba Kotié Diallo waaye dafa xaymaan noonu yàlla def tam mu boole ñëpp moom dafa bëgg ñëpp moom amul xeet. moom amul xel gis nga même baa bi daf dañ ne kocce jàll dañ ci boole ba pare ne kocce jàll te baa sant. dafa yaatu. te ba ak jàll ay kal lañ. waaw ak kal lañu mais la noonu ñoom dëkk bi noonu la xam nga ñun jàll yi moom ñoo ñoom dëkk bi boo <laughs> tax kocce jàll la moom moom baa la sant. alhamdulilah rabbil alamina mu toogu fi boo yàlla may ko fi njabootam borom njaboot ngay gis ni borom daraja ngay gis ni borom martaba ngay gis ni mais moom defa boole ñëpp. ni mu amee warsuke Dakar miin ko noonu la ko amee Conakry noonu la ko amee Labe noonu la ko amee Mali Yembre noonu la ko amee yem noonu ko amee fenn na fenn di dafa mbiram dafa yaatu moomu nitti àdduna la nitti lislaam la àdduna boo ma àdduna mooy àdduna bi ñi ko bari xam ci àdduna bi dafa bari waaye ci umma lislaam tan daf ci am doole lool léegi nag bi mu amee doole boobu ñun nañ ko ziyaare mais kii ne na la quatre heures de matin mais ñun Fuuta mooy Guinée moo doon ñëw di ko ziyaar bi ko commencé yàgg na waaye ren soxna am nelew ci weeru koor bi kooku bi mu nelewee ñëpp ñëw fi te weeru koor lañ ko doon ziyaar mën leen bii yoon jeggal naa leen parce que defu ngeen fi lu ëpp ñaari fukki fan suma doom yi ñi dañu jóge Amérique ñu jóge Allemagne ñu jóge gën a ñëw bëgguma ngeen defaati ziyaar ñu ñëwaat mais yàlla def suñu mbokk yi dëkk base Guinée parce que ñun dañu am moyen Guinée am baatu Guinée am xootu Guinée am Guinée frontière man ma am relation ak ñoom moom ki nga gis mu nekkee ni Oustaz Moussa Konté daal ne ay ah, yéen góor gi yéen kese koy ziare ci wax bi noonu la commencé boo mu àgg ci nopp góor bi mu ne ah kon ziara bi bu fekkee ñëpp la mu ow ma ni ko sëriñ bi waxee mu ne ma laajital bu fekkee ziara bi ñëpp la nangu naa ko waaye bu fekkee suma mbokk yi kese la yéen indi suma mbokk kese jéggal naa la parce que dëkk bi fu mu toll Guinée fu mu toll senegal fu mu toll àdduna fu mu toll at yi ma am am lu ma bay loolu indi bi mu tànn thème am nangu ko jox jox ñu thème bi koo wax thème bi mu mu nangu. kon daal moo tax mu tànn thème bi. thème bi thème bi moo tax mu tànne ko. xam ni réew bi fu réew bi toll. Eh, mu xam ko fii xam ko fenn ni ak sax. loolu la mooy moom tax pendant su région bi yëpp daanaka xam nga am na fu bari am na fu sori mais dañuy wax fu ñu gën a xam mooy su région bi mu ne léegi daal mu am ak occasion boobu mu laaj ñaata kaamilu ngeen di wax mu commencé da ngeen di wàcc junni wala ñetti junni ñu ne ko ah déet. <laughs> duñu day bari dañuy seet daal da see dañuy seet loo xam ne bu ñu ko wàccee eh, du doon rek ak jàng na. doy na incha nañ ko mun a am ñu commencé ko junni boo ci suuf. mu ne bu dee junni day tegu tuuti mu ne moom ndax da ngeen ci def ay ñaan ñu ne ko incha allah dañ ci def ay ñaan mu ne ah, bu dee loolu day am man tam ma dolli suma ñaan yàlla dolli jàmm bi nangu naa ko loolu ma moo tax mu tànn tem bi loolu moo tax mu nangu ko yàlla def noonu kilifa bu nekk ow na la laaj la ndax ma nangu nga ne ko mu nangu loolu nag bu mu amee ñu jàpp bés li ngay gis ni jàpp ñu ko lu ay biñ ko jàppee a tey ëppul ëppul vingt cinq jours. kon lu jàmp la. lu jàmp la lu jàmp la mais li mu jàmp jàmp yëpp ñu jàppee bés bi yàlla def ma Madani ñëw fii di ko seet moom dañ koy seet Serigne Babacar si suma Serigne bi suma xarit yëpp dañ koy seet parce que papaam lañu. Serigne Babacar Sy Mansour. ma bien sûr Serigne Thierno Madani bi mu ñëwee di ko seet mu wax ko bés bi mu ne ko ah lu ngeen def mu ne ko ah wax naa xale yi ñu seetal ma chef de quartier fii. Eh, kooku délégué de quartier à chef de quartier à mairie bi bon dem nañ te yónni naa yónni naa suma doom bi yónni naa ko ci préfet mu ngi laaj laaj autorisation parce que pour ñu jox pour ñu jox ñu fii mu ne ah, affaire bi war na weesu loolu ñun de l'intérieur war na ko yëg gouverneur yëg euh, nguur war na yëg lii kon ko ñëpp koy defande li ñu may li ñuy defal suma maam di ko defal maam Serigne lu Bakke di ko defal ma Baye Serigne Babacar si ak keneen ak keneen yow mérité nga loolu. loolu xam nga Thierno Madani moo sañ wax loolu ku ku melul nii moom pour nga wax ko dafay xaw a jafe parce que dañ koy gisee leneen mu jël téléphone au ministre de l'intérieur ne ko ah communauté sénégalaise bu Guinée parce que ñun nii Guinée juddoo fii. ak Guinée yi juddoo Guinée ñëw fekkee si fii ak ñi war a jóg ñëw gine ñun ñoo créé loolu à douze penc lébu yi ñun treizième penc lañu yàlla def loolu tan bokk naa ci bopp bi kii ko sababul mu ngi ni toog donc alhamdulilah rabbil laa min de l'intérieur yàllaal ñu rànd fekk bon mardi la munoon munul nekk mercredi parce que dafa am conseil de ministre mu ne bon jeudi nga ñëw jeudi bi ñu demee foofu waxtaane mu dalal ñu dalal bu rafet nangu nekk taalibe nangu nekk doom nangu nekk xarit yaatal ñu lool bi mu ko defee mu téléphoné gouverneur Cheikh Abdou Gari bokk na ci délégation bi demoon c'est timide de l'intérieur sëriñ bi Oustaz Moussa Konté ñu ay kilifaa demoon parce que kilifa moo ñu yónni kon ko du bés bi dañu bëgg mu wuyoo turam eh, communauté Guinée Sénégal la ñoo demoon l'ensemble des communautés guinéennes ak l'ensemble des collectivités lépp ñoo dem seeti bi ñu jëlalee ci bi ñu ko gisee tàng tàng mu jëlal mu rendez-vous ci gouverneur alhamdulilah rabbil alamin bu ñu ñëwee fekkee gouverneur kooku tam nekk mbokk nekk xarit nangu nekk taalibe ñu duggal seen loxo bu baax a baax parce que xam nga mairie mënoon nañu jox fii préfet ne du baax parce que ñu yow xam nga dëkk bi nu muy doxee mais bi ñu ko ne maire yi jox nañu fi mu ne danaa yónni ay éléments ñu xool ndaa mun na naka lay ñu koy defaree bi ñu fa jógee le lendemain la ko def alhamdulilah rabbil alamin na ñu ñëw jàpp ci mairie mairie Diopoul Derklé bi euh, Cheikh Gueye maire de Dakar Batilin ñoom tam ñu jàpp ci bon waxoon nañu dañu indi plateau médical sapeur pompier police gendarmerie eh, ñii nga war a pompe service d'hygiène ñi war ñëw pompe benn ambulance boo xam ne bu dara xewee fii ñaanuñu ko yàlla fekkee ñu ngi en sécurité. dina mel ni xew-xewu diine yi am ci Sénégal yëpp. màggal ak foofu laa la bugg a ñëwal d'accord li ma la wax ne Thierno Madani wax na foofu laa la bugg a laala kon li Touba am Tiwaawan am ko Madina Baay am ko Njaasaan am ko Madina Gunaat am ko fennaan fennaan am ko ci kër dina laayal am ko wax dëgg yàlla lool la ñu gouvernement Sénégal defal ci travers Alaaji Mouhamadou Moutar Ba ko ci jàll parce que góor gi dafa am barke loolu na li ko indi parce que dafa am ay doom ni fàttali woon démb a barke démb ni mu nekkee woon a seen papa te ñu xamal ko diina xamal ko doylu xamal ko xam-xam ñooñu ñoo yokk suñu xalaat yokk suñu doole boo mbiru bi àgg fu mu àgg moo tax nga am ñu am relation boo yàlla defal ñu relation boo réew FM bi bu ci na la ñu lancé kon yéen ni méga RTS day ñëw couvrir kii bi gouverneur bind na RTS ni mu bindee police ni mu bindee service d'hygiène à part loolu doyul de mu seetaan ni kon ko ñoomu dañu am gan yu jóge Guinée bon centre centre culturel Blaise Senghor seen disposal nekk loolu yëpp tey jii nii kayit yi mu ngi fii suma poos toog tan dem nañu gis DRTM li mu ñu mun a jox jox nañu ko piscine olympique gooku maire de dakaar la parce que juddoo Dakar yaroo Dakar muy wax a yow piscine olympique tam xam nga maire de Dakar moo toog foofu tan eh, dafa fekk chambre yi fi am bariwul mais ñoom tam lépp lu fi des ñu ngi à suñu disposition xam nga noonu Sénégal réew taraangal a dëkkandoo yi añi am seen moyen bopp añi jóge gën tam am am fii kër wala am fi mbokk kon mbir bi daal nii la tàmbali nii la commencé dox bu gis nga nag yi fii ci buntu kër gi commencement la fii suba boo ñëwee fi air bi gannaaw day fekk rek am nañu rëy yu bari wàññi mais dangay fekke mu ëpp waat mun nañu xaar ziyaara bi mu sax comme màggalu Touba comme gàmmu Tiwaawoon at mu jot bu dikkee euh, ñu def ko comme nii alhamdulilah rabbil alamin tàmbali la bisimillahi rahmaani rahim la li Alaaji Maaliki commencé woon Cheikh Ahmad Bamba commencé ko Alaaji Ibrahima Niass commencé ko Alaaji ma Seydou commencé ko kenn na ni ak kenn ni commencé ko noonu issa allah summa isaa allah suñu bisimillahi rahman bi noonu day continuer noonu lañ ko bëggee te duñ bëgga tan nga ñaanal ñu mu continuer parce que ngoon nga sant xam naa yàlla day nangu sa ñaan ay kal lañu dañu gañ nga ñaanal ñu mm. Euh, kon communauté guinéenne fii ci Sénégal euh, mm. tàmbali nañu xew xew diine à du màggal de Touba wala wala gàmmu Tiwaawoon ak euh, xëy na appelu laayeen yi ak yeneen ak yeneen i xew-xew jërëjëf Thierno Boubacar Diallo ñu ngi ñëwaat ci yow tuuti ñu dem ci Thierno Magid Ba Thierno ñu bëgg a gën a xam jaar-jaaru kilifa gu mag gi fii ci Sénégal wax nga ne vers les années 30 la ñëw Sénégal année 30 ba 2023 yàgg na lool Euh, mu jaar feek Seydou Nourou taal jaar feek ñoom Serigne Babacar si ni nga ko waxee président Léopold Sédar sengoor mais jaar-jaaram ci Sénégal buñ ko doon retracé ak ay jëfam taxawaayam ci réew mi loo ñuy wax. Euh, les vous le, Sénégal était le, de l'enrichissement euh, en, en Afrique de l'Ouest moo doon moo réew boo xam ne gerte fii la noonu nekk te gars yi Guinée gan doon jóge ñëw béy di ñibbi mais ba mu ñëwee euh, si jaat gay xam kii kii borom xam-xam la euh, ñu jël ko si dëgg-dëgg ba si El Hadj dëgg turam woo ko mu xam ne kii kii xale bi kii war na kii ku euh, du du neen kon dafa doon ñëw Sénégal di ñibbi di ñibbi Guinée. d'accord mm. bu bayee ñëw indi fi. bu bu bayee kii ñibbi Guinée. d'accord après mu ñëw installé wu ñu ko moom ko installé euh, ba pare euh, moom boo nekk seen yu bëri voyage dem na màkk moom ak El euh, mooy Baye Niass voyage bu gën a mag bu am succès bay ñas am màkk ñoom ñu àndoon. ñu àndoon. loolu euh, je me souviens pas de l' année. <laughs> yàgg na depuis lors euh, mu installé après mu am kër Ngexo. campement Ngexo. moom yaa euh, ku fa nekkoon ne kii kii moom kii moom il faut que c'est la séddu ne kii moom noonu il faut que mu dem indi ko Pikine. mu koy indi pikin mu dëkk Pikine dëkk Chérif Abib Abib doomu doomu Cheikh na Ahmed Tidiane. Euh, mu dëkkeek moom mu koy defar lépp ñu ne kii moom Chérif Abdou ne Chérif Habib ne kii si ñun la bokk El Hadj ne kii moom mat na ma doom kii doy na ma doom El Hadj Abdoul si Sy xalifis Dabakh alhamdulilah xam nga nitu yàlla la kooku nitu aljan la mu ne El bu mu doon ñëw fii rek la doon ñëw seen euh, yu gën a mag Sénégal suñuy suñuy papa suñuy maam moom ak ñoom la mu démb léegi moom ak doom yi la doom yi dana ko dañ ko jël papa loo tax doom yi jël ko cër ne bi bus bi amee di foog ñu màggal ko il ñu xamal ne Sénégal kii mooy kan parce que tant que mu ngi senegal jàmm mu ngi fi amul ñu ni deful pour mu dem Guinée mais actuellement. Sénégal Sénégal moo am moo am moo am victoire si suñu kaw. moo am chance boobu. loolu tax euh, ñu jóg si ne incha allah puisque am nañu am na nay force de mal yu bëgg commencé dugg defal ñu ñaan pour yàlla def si sutura. yàlla dàq seytaane Sénégal dàq seytaane Guinée dàq seytaane. sa ñaan yàlla nangu na ko tant que yéen a ngi fii nit ñu mel ni yéen ñu ngi fi yàlla def ci def jàmm loolu tax ñu organiser di di ko jukkal Sénégal di ko fayee Sénégal di ko gërëmee Sénégal bisu ñaan lay doon bisu ñaan lay doon bisu ñaan lay doon ñaan boo xam ne si si xol bu sedd lay jóge si bëggeel lay jóge si kàddu bu baax lay jóge si nitu yàlla lay jóge loolu la ut loolu la ñu ut loolu moo tax mooy tax suñu tànk loolu rek moo tax ñu koy def léegi nag kilifa yi diine ne kii bismillahi rahmaani rahim mais day continuer incha allah loolu la ñu yàgg mm. euh, ban taxawaay aussi la am ci communauté guinéenne xam nga jóge sa dëkk dem beneen dëkk euh, tumaranke daf lay yomb xëy na yenn saa yi jafe-jafe yi euh, représentation diplomatique yi état yi di teg yenn saay seen rôle duñ ko matale ndax dañuy bari di dégg ñu tukki di wax ne xëy na suñu consul duñu ko gis suñu ambassadeur sax pour ñu teg ko bët problème la ban taxawaay la am ci doomi Guinée yi nekk Sénégal ambassadeur Guinée yi ñu fi ñëw ñëpp nañ ko jox cër communauté guinéenne yëpp problème bu ñu am bu jógee dem foofu rek yàlla di si def sutura amul kii pël la amul kii malinke la amul kii soso la amul kii gerse nekkal guinéen rek boo amee problème bu ko yëgee bu demee incha allah day sotti loo tax ñoom ñu toog ñu ne kii mooy sunu papa ñun ñëpp. daa mel ni mooy seen ambassadeur. mooy mel ni dafa moo moo nekk seen ambassadeur. jukkal boobu la la lu gis ne ñoom ñoom ñoo koy def puisque ñoom ñoo obligé sax ñu def ko du du ñun pël ñëw ñoom suñ mbokk Guinée ñooñu obligé ñu def ko loolu moo tax euh, depuis des années mu ngi leen di dimbali te étudiant bu ñëwoon dimanche boo demoon si këram foofu la ñuy def foofu la ñuy doon lekk ñoom ñëpp ñu amul foofu la doon lekk samedi dimanche foofu la doon foofu la doon lekk loolu moo tax alhamdulilah rabbil alamin jëkk seen jëf jëfam yu baax yooyu moo tax ñu koy defal lii. alors kilifa bi tey boo doon ñëwaat ci ay jikkoom yoo xam ne xëy na euh, jaar-jaaram ci àdduna yëpp ay leçon la mais yoo xam ne bëgg nga ndaw yi leen wër euh, jàpp ko mu nekk ay repères yoo xam ne dañ koy jëlee ci moom euh, yan lay doon. xam nga yàlla dafa wàcce benn surat boo xam ne bu gàtt si alxuraan. suratul asri wal asr inna l-insaana la fii xusrin illa llaziina aamanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri loolu lay jëfandoo booy boo boo bu la kenn bu la kenn wóolu nga matal ko bu la kenn bu kenn tooñee nga baal ko bu la ko kenn kenn defee lu lu baaxul nga ñaan yàlla na ko yàlla baal nga muñ muñal boobu nag loolu loolu loolu loolu la si loolu la ñu yaree si loolu lay jëfandikoo lool lay jëfandikoo loolu lay jëfandikoo jikkoom mooy loolu boo doo seet leneen doo gis leneen su dul loolu te nit nit ku yaatu la ko si nit ku mun ku mun joxe nit kuy maye boo ñëwoon léegi boo gisee lu xat-xat di nga di dina la jox dara te doo doo muñ doo wax doo nangu il faut nga nangu su nu ma la koy joxee la ak yow noo koy gisee nga ne kii kii moom souvenir la kii moom fond de caisse la loolu moo moo loolu rek la. loolu mandarga la ci moom. mandarga si moom bu la mayee rek alhamdulilah di nga yokk loolu yàlla yàlla ñëpp ñoo ko ko séedee ñëpp ñoo ko séedee. kon nitu yàlla la. nitu yàlla la c'est un homme de Dieu. c'est un nom de Dieu et un homme de paix. Dieu et paix. loolu mooy devise loolu am na solo loolu ñu wut ci seede porte parole am un homme de Dieu un homme de paix euh, loolu lañu ñu Thierno Magid wax loolu loo ñu ci mën a wax yow. Euh, jege nga ko jege nga kilifa gi xëy na yaa ñu ko sax gën a. xam ko doon suma sago. waaw wala waxtu bi di jeex. Mm-hmm. nga tuuti. am lu mu ci wax. Mm-hmm. Abdou am lu mu ci wax le bu dee du tuuti. Mm-hmm. Euh, xam nga góor gi. ku mel ni moom dafa jafe am ci ñun man ci at yi ma am ak ñi ma xam gisuma moroom am boo ma xam ku ko gat yàlla tax may wax li ma xam nan xam na du ma waxantu laaj nga la sànka ci communauté guinéenne man ancien président union ressortissants guinéens la boo xam ne Guinée da ancien la am côté boobu xam na lan moo dox diggante am ak Guinée yi ak Sénégalais yi ak nguur gi moom buur ndawal buur a loo def la fonk jox la sa cër boo mot teg bugg a xale lool fii boo fi xëyee ci suba li mu leen di njëkk jox fii li ñuy joxe taalibe yi dugg ci kër kër gi day joxe pour taalibe yi nga xam ne day dugg bu xëyee lool bu jullee ba pare lool loolu lay jox jigéen ñi togg taalibe yi dugg waxatuma loolu li ñuy togg kan ak kan mooy ñëw waaye noonu li ko gën a neex mooy nga nekk ku déggu soo nekkee ku déggu moom ñëpp xaritam la waaye boo nekkee ku déggu nga ragal yàlla bëgg a yonent bi di jokkoo mbokk da nga yaakaar ne yaay papaam wala yaay sëriñam defal lay xaritoo lool lool xam naa jikko boobu ci moom. pe soo gisee man ne nga wax sa sëriñ Moussa Konté paix ak solidarité bi ñuy wax communauté guinéenne pi ñu am pi boo ne dak Sénégal nga ne Mauritanie nga ne cap nga ne Gambie ci li ambassadeur bi nga xam ne moo fi nekk fii li mu li mu yor te ñu am li ñuy wax conseil guinéen Sénégal maa yore saage social solidarité religieuse kon xam nga góor gi ñun la gën a laal li ñu gën a soxlaa li ñu sant pour ñu liggéey ko te boobu la góor gi te loolu xam ko parce que man am na loo xam ne dama koy nobb wax ma ko loolu <laughs> comprendre nga li may def fale li ñuy defante ñun ñaar benn bokkul parce que suma kilifa kon daal euh, ci bañ a guddal pour kilifa yi fi nekk kenn ku nekk laal tuuti déggal mbir bi alaaji Mouhamadou Moutar baa ko ci Diallo euh, nit ñëpp la moom dafa yemale ñëpp yaatu xam nga nit balaa nga yaatu xol bi mooy yaatu rafet kon dafa yaatu xol rafet xol am xam-xam teyulu soo ñëwee mu jàpp la si li nga yaakaar ne ah mais boo ko ne jàpp da ngay xam ne borom xam-xam parce que boo duggoon fi tey nii nga yoroon saa su ko neexee mu ne nangam moo nekk sa sa biir saak su ko neexee nga ñëw suba te mu ne ah tey day kon kaay xal nga mu ne nangam nga ndekkee te doo ko witti am na lu ko yàlla may. am na lu ko yàlla may te bésu nañu yàlla may bu doon heure bi muy wérdu ngay dugg tay boo ko teggee bot xam naa ne séeréer nga ku xam nit nga surtout guddi dangay xam ne li ma wax dëgg la kon kooku mooy Alaaji Mouhamadou Makhtar Ba ko ci jàll kooku yaatu la ah, xëy na dinañu am occasion gis ko en tout loolu maa koy ñaan <laughs> yàlla loolu loolu li may ñaan yàlla la man ci am personne parce que loo gis yi àdduna gisu weddi gis dañuy ne bokku ci kon bii gis lay doon balaa wetti am donc kon bu fekkee ne xaj na nga jox sëriñ ñaari sëriñ kenn na ko nekk bu dee ñaari moo sax ñu laal ko ñu nga jooy nga indi ñu toj balaa air bi di jeex parce que man li ma la wax li ma xam ci moom gërëm la sant la sant Rewmi FM sant directeur bi añi koy liggéey yëpp gërëm la yàlla yàlla bi nga xam ne moo am. Sëñ bi nee na ma Papa Cellou Dalein Diallo la. kon moom. Euh, mooy taaw ci kër kilifa gi président Mbagnick Diop ci ci yëfi la bokk. <laughs> Euh, Salek mi ngi koy wax sànq donc ñun tam ci la ñu euh, bokk macha allah ndax seetlu daleen jàll moom itam. ci réew ma la bokk. politique yi boolewu leen. bi muy jàng ay kaw. Papa Sellu ak góor gi ñoo nekkoon xarit di bokk liggéey xam nga ñaari am xam-xam xam nga set Sellu daleen setu waliyu la. doomu Cerno Tijaan na Cerno Tijaan bu Cerno Saar bu daleen. kooku wax dëgg yàlla Thierno Saadu bu Dalem amul ko déggul parce que boo demoon kër eh, Thierno Saydou Nour Taal bi néegi waa Dalem fu ñu dal mu ngi foofu néegi boobu toujours bu ñu fi nekkul mu ngi fermé kon li ko seede depuis bu muy jàng la ko papam dénk alaji Mouhamadou Moutar fekk na moom mag ñi boo ñëwoon léegi gis góor gi ne ne seetlu mooy suma taaw eh, tey ñoo jullandoo juma al bu nekkee Sénégal aljuma bu nekkee day ñëw fi àndaagoor gi julli juma dellu si doog a dellu fu mu nekk daal kon doom la ci kër gi. kon ñu wéyal waxtaan bi. waaw Imam Konté yow itam nga bokk ci euh, njaboot gi lan nga mën a dolli euh, ci li kilifa yi wax ci euh, El Hadji Mamadou Mokhtar Bakko ci Diallo waaye itam xew-xew bi nga xam ne bëgg ngeen mu mel ni màggalu Touba wala gàmmu Tiwaawan. bismillahi rahmaani rahim. sallallahu wasallim ala sayidina wa nabina maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilahi rabbil alamin comme euh, ni nga ko waxee maa ngi sant yàlla bu baax euh, di wax ne li may wax ci cernom Mouhamad Mokhtar Ba ko ca Diallo du bëri waaye li may wax am na solo mooy dafa nekk koo xam ne day mbooloo nit dajale nit ñi li ñuy wax rassembler ndax euh, ñun loolu moo ñu gën ci ci ay mbiram li ko yàlla mooy ba pare waaye na moom ñëpp la uuf moo tax ki événement bi ziara bi nga gis lépp nga gis ci biir baa ñu kenn kon comme nit yàlla la yàlla moo ko wanee noonu te ba jël na léegi thème bi mu nekk loo xam ne jàmm ak euh, jokkalante loxo ak dimbalante kon euh, loolu yàlla may na ko kon ñun ñi nga xam ñu nekk nañ fii di organisateur si ziara bi kontaan nañ ci lool góor gi fu mu toll ak dundam ak âge fu mu toll dañuy ñaan yàlla mu gën a gudd ndax moom baax na si kon boo xoolee communauté yépp si moom moo ko tàmm loolu nee na communauté guinéo sénégalais ñoo koy def bàyyi ñu kenn jëluñu benn région si Guinée la composition Guinée dafa composé ñeenti région naturelle moom góor gi neen ko yëpp ay bokk mooy la basse Guinée la haute Guinée la Guinée forestière et la moyenne Guinée boo gisee ni ñëpp daje fi loolu moo tax te woote googu ñun loolu la bëgg boole ko communauté sénégalaise nga xam ne ñooñu dal ba demoon nañu si loo xam ne ñi ñuy wax treizième penc ñu ne communauté Guinée ñooy treizième penc kon su ko defee lépp lu ñuy def ñun tamit si wàllu loolu dañ leen woo ñu bokk si comme ñoom tamit lépp lu ñuy def dañuy woo ñu dem jàpp si kon loolu waxtaan si góor gi du jeex ndax li nga xam ci bëriwul ak tuuti la xam waaye ak tuuti boobu mu firndewaat ko rek mooy il est rassembleur pour nit ñi nekk benn surtout si diine loolu laa xam si moom ak li ko yàlla may euh, ñaan bi mu ñaanal dëkk bi sedd àdduna yëpp sedd ñu mën a doxal suñu diine kon loolu laa xam si góor gi jërëjëf Imam Konté seede boobu rafet na ñu dem ci euh, Abdou Khadre Gaye moom moo fi euh, kon représenté communauté lébu di aussi liggéey ci wàll woowu jite EMAD Abdou Khadre yow moom doo gan ci ci ci émission démb ak tey euh, lan moo boole Thierno Mouhamadou Makhtar ko ci Diallo ak communauté lébu bañ ne ñoom léegi ñooy treizième penc. waaw xam nga góor gi man ñett yoon laa ko gis. bu njëkk ba dañ ñëwoon di ko ziar fii communauté bi ñoom Thierno Boubacar ñu invité ma ma ñëw ci cérémonie bii nga xamante ne moom la ñuy def am na opportunité toogaax moom ñaari yoon li ma yëg mënu ma juger parce que xaw ma nit ki mais sentiment bi ma am bi ma toogeex moom laa mën a témoigner euh, soo toogeex moom tu tu tu sens la paix, la, la sécurité, la générosité et la sainteté. leer gi daal ma nga fa parce que nit ki li nga ëmba moom ngay balla loolu dal na xel euh, communauté bi nag relation bi ñu am ak ndakaaru loolu moo ma mag ndax ndakaaru nekkoon na capitale de l'Afrique occidentale française communauté yi nga xamante ne ñoo nekk ci Afrique occidentale française bi yëpp fii moo doon seen capitale kon ndakaaru nekk na capitalu Guinée nekk na capitalu Sénégal nekk na capitalu Nouakchott ak donc sooy nettali taarixu dëkk yooyu dangay xam ne loolu ma nga fa mais ab avant frontières yi di am empire du Ghana parce dafa ëmboon dëkk yooyu yëpp Samori Touré royaume ba mu dirigé woon dafa ëmboon dëkk yooyu yëpp kon mbokkoo gi yàgg na te man yëg naa ne sama maam ànd naax ay mag yu nekkoon foofu ñu jàmmaarloo ak tubaab bi mag yi nekkoon foofu ànd nañoo mag yi nekkoon fii ñu jàmmaarloo ak tubaab yi ba lii am tey kon communauté yooyu ay mbokk lañu mbokk gi moo ñu mag moo ñu jiitu tey jii nag ci république yi nga xamante ni ñun fa la ñu nekk itam xam nañu ne lëkkaloo bi su amul bu ñu mën a dem fenn union africaine c'est pas seulement l'union des chefs d'État c'est l'union des peuples man cérémonie bii ñuy tenir loolu laa ci yëg dama yëg ne géño gi nga xamante ne moo boole waa Sénégal ak waa Guinée weesu na lébu yi weesu na Pël Fuuta yi géño googu li koy dëgëral cérémonie bi ñu jëm gannaaw ëllëg ci la bokk te gëm naa ne cérémonie boobu dina ubbi ay bunt dina ubbi ay fenêtres nga xamante ne man tey xaw ma ko mënuma ko prévoir mais c'est des fenêtres et des portes qui vont consolider les liens mel ni góor gi daf ko xeeñcu parce que moom moo tànn thème bi ne paix entente et solidarité loolu koy fàccaam ak fi réew mi toll. wala ak fi jamono tool ak fi jamono toll dafa mel ni moom en visionnaire mu ngi ràbb sëru teraanga bi nga xamante ne moom moo ñuy odd ëllëg mag bu mel noonu nag soo ko amee ñu ne la kii jëflante na ak mag ñi xam nga koo dajeel ci mbedd mi n'importe qui ñu kii jëflante na ak Seydou rek war nga ko fonk. Ah, man de koo dajeel <laughs> ci tali bi ñu ne la kii jëflante na ak. maam Baye Niass kii jëflante na ak sëñ Fall ah, ak sëñ Babacar si da ngay xam ne kii jeexuti mag yi la ci tey boo ko gisee gis nga ñooña soo ko gisee gis nga ñooña soo ko teralee teral nga ñooña soo amee ñaanam am nga ñaani ñooña kon boog man mag ñi laay xool ci moom su ma ñëwee nag ak communauté guinéenne ma gis fekk fi ku mel ni Thierno Boubacar Matakaaw fekk fi imam Konté fekk fi taawam bii ak xale yu mel nii damay gëm ne ànd bi ñu war a ànd pour tabax suñuy réew fii lay sosoo man de gëm-gëm boobu laa am te yaakaar boobu laa te ñaan boobu laay dugal ci biir bés bii yàlla na barki góor gi dugg ci ba jàmm am Sénégal am gine am Afrique am ci àddina bi yàlla na barki góor gi dugg ci ba ñu juboo ba lëkkaloo ba nekk benn ànd tabax suñuy réew aywa kon ñuy gërëm Abdou Khadre Gaye bu baax a baax njiital EMAD ci seede yooyu ak surtout euh, ni mu defee link diggante euh, lébu yi ak communauté euh, guinéenne fii ci Sénégal Thierno Boubacar Diallo ñu bàyyi la rek yow nga tëj yow yaay président wu ziara bi nga nga nga joxe sa sa sa tëj ak sa ñaan xëy na ci xew-xew bi ak waxtaan bi. waaw kana jërëjëfalal ne alhamdulilah rabbil alamin di jërëjëfal Thierno Abdou Majid di jërëjëfal Oustaz Moussa Konte eh, di la jërëjëfal di la sant sëñ Abdou Khadir Jaylaan Guèye eh, di la fàttaliku rek bu ñuy tabax zawiya bi si lañ jàpp Touba bi jàpp suñu maam Alpha Yaya Diallo. zawiya maam El Hadj Malick jaar fii am lu ko yàlla mayoon mu ne bii suma njaboot bii la bi communauté Guinée yëpp la. kii hadiya hadiya jullit yëpp la ñetti pàcc yi la fi bàyyi woon xam nga loolu du tey kon ci barke loolu boo léegi te tax na ñun bokk ci jumaa yu bari yàlla def noonu tey jii nii alaji Mouhamadou baa ko ci Diallo bi ñu war a demal di ziyaare dimanche bii di ñëw le 28 ñu war a commencé 9h ci suba boo 19h bu soobee rab bi ak gan yi ñu yàlla may ñu jóge gi ne ñëw yàlla ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahiim ñu yeggali ko ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla na bés bi doon bés góor gi. yàlla bés bi na doon li mu xalaat yàlla na desu bés bi na doon thème bi képp ku fi ñëw na nga xool sa carte xool thème bi nga ñëw ànd ak tem bi. lii lañ gërëm di gërëm gouvernement sénégalais commencement président de la république eh, boo ci ñi koy jàppale yëpp. di gëlal président de la république di dumb Doumbouya boo ci ambassadeur bi ak ñi koy jàppale yëpp di gëral di ñaan ni sàkku ñaan ci néegi diina yëpp ci senegal di gëram ni ci jàpp yëpp ñuy feete ci suuf nañu jàpp ne kon tudd nañ seen kilifa bàyyiwuñu leen waaye noonu gouverneur de Dakar préfet ak sous-préfet ak maire Joppol Derkel la maire euh, ville de Dakar kenn demul ñu des mu ngi leen di jërëjëfal yal na leen yàlla fayal boppam ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ñu bés bi passé ci jàmm asalaam ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaan rahim ne ko alhamdulilah rabbil alamin muy njëriñ Sénégal mooy njëriñ Guinée mooy njëriñ àdduna mooy njëriñ Afrique mooy njëriñ umma islamique allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf Thierno Boubacar Diallo euh, Thierno Abdoul Majid Ba yow lan ngay tëjee ci waxtaan wi ci góor gi euh, peut-être aussi ak xew-xew bi euh, di gërëm waa Sénégal gërëm boo xam ne yàlla na leen yàlla may fay yàlla na leen yàlla fay bu leen kenn fay su dul yàlla yàlla na leen fay comme kër gi lu mu bugg si jàmm entente ak solidarité yow it ñu lay ñaanal ñu ñaanal sa service yàlla na leen yàlla yokk yàlla na leen yàlla fay lu gën a baax dama ko commencé woon saa fàtte ak salaatu fàtte ma tëjal nun ko fàtteeg salaatu fàtte yëpp mu ngi ci biir si biir si ndigal wàllu yu àdduna bi yëpp yal na leen yàlla wax ba barka auzu billahi sami ali min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiima siraatal laziina an'amta alayhim ghayri maghduubi alayhim wa lad-daalliin amiin allahumma salli alaa sayyidinaa muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadii ilaa siraatikal mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim salaatan tafhamu ridaa wa taysiir wa tahmilu bashiir wa tahsin wa takunna waliyyan wa nasiiran anta nurun wa dinun mawlaa wa ni'mal nasiir barke allahumma salli alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi salaatan tunajjiinaa min jamiil al-ahwaali wal aafaat وتقديننا بجميع الحاجات وتحينا بجميع ذنوب السيئات وترفعنا بانك على الدرجات وتبلغنا باكثر الخيرات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الله باب المال بركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تبارك وتعالى وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه وتيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك رسولك نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما عدد الشفي والوتر كلمات ربنا تامات بركاته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 xew-xew diine bi mu sos Sénégal euh, tàmbali kon ci dimanche bi ziara annuelle di bëccëgu ñaan bu mu jagleel Sénégal Guinée ak euh, Afrique ak àddina ñuy ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan mu nangu ko euh, seen thème bi jàmm ak dal Sénégal soxla ko lool yàlla na fi jaaree ball ci réew mi lépp luy fitna di fi yeewu aussi mu jaaree fi fay yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi leen di gërëm ci disponibilité bi di kon am mbégte sekkoon ak yéen waxtaan wi di gërëm ñu doon déglu ñëpp démb ak tey la woon ci réew mi FM Fatou Thiam Ngom ci kàddu gi Euh, di gërëm Léon Paul Mendy mi nekkoon ci wàllu machine bi di leen dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen fàttali waxtaan wi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel ñu yendoog jàmm